la ma waxoon na la waxoon doomam yeeg sëtam yi. ni leen. ni leen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. dama koy àndak ak dama koy ànd ak rek. ci kaw. ci kaw. ñi jiite moo ma jiital. ci kaw jiital gi mu ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. bu ma jiitoo. dama leen di geesu rek. di leen geesu rek. bu ma leen séenu taxaw ma leen séenu it di taxaw nag leen rek. bu ma seen seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. ma geesoo gisuma leen it dëpp daje daje ak dama leen di jël topp yéen. kon kon kon bu ma bu ma dajee ma jël leen damay dëpp bu ngeen ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo léegi mu yàq doomu aadama yi mu mu jiitoo. léegi mm-hmm. lay yàq diine maa mu yàq kaay maa mu yàq diine. Mm-hmm. du ma ko waaye man de bu ngeen ma jiitalee. dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi du ma ko def mukk. waaye waaye may doxit nag. Mm-hmm. damay di geesu. waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet séenoo seen gisuma leen ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko wut si leen. bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci yéen. bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk. lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbi nañu ci biir loolu. nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. yàq loo xam ne yàq addina maa ma yàq diine. nee dara lu yàq addina wala diina du ko def. diine ji du jóge ci moom mukk. ànd naa ak ñëpp. ànd naa maa yor jaam ñi. te yërmande leen yore. nee na li ci def nag yàllaa yori jaamam te yërmande leen yore. yërmande joojee nag day ñaan mu yokk rek. te yaatal ko lool. yërmande gi ak yaatal gi rek ñaan mu yokku. yërmande gi yaatal gi day ñaan rek mu yokku. maa ngi a baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di yéen. na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax. maa a baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di yéen. na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax. maa ngi nuyu bu baax a baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen di nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax